wax léegi ci diggante sëriñ baaba ak sëriñ basiir noonu mu ko waxee noonu la amee xarfan bi xarfin dara wàññi ci waaye noonu ko sëriñ baaba digle woon itam ni la ko njaboot gi di defee booba ba tey dara soppikuwu ci waaye noo ngi sant di bég ndax lu nu nekk ngeen nekk ca ak nun lii firndeel na ko wëlbatiku itam nag di nuyu sëriñ Takko ak sëriñ Abdul Muhaymin ñi fi teewal seen mag sëriñ Mamor moom seex Mouhamadul Mourtada màggal gii de 1993 la ñu ko tàmbali keroog ba ñu ko tàmbalee ba bis bii ñu toog waa kër sëriñ Mourtada mësuñu manqué màggal gi ndax sëriñ Takko mësula wuute màggal gi loola nag dafa am lu mu firndeel itam. mooy suñu diggante ak ñoom wax ba wax jeex nag wax ju am seere moo ci gën nu ñépp xam nañu ne cër bii nu yàlla jox te jaarale ko ci sëriñ Touba sëriñ Baba moo ko liggéey sëriñ Baba moomu yi lii sëriñ Abdul Akim wax ba mu noppee gis sëriñ Touba. sëriñ Basiru la àndal ca liggéey ba waaye gis nga kërug Tuubaa Nduuf gii te waa Nduuf ñi ngi nii jàkkaarloog man di ma dégg xam nañ ne kër gi bi muy àgg fii mu àgg tey mooy bi ma yàlla boolee ak Cheikh Mouhamadul Mortada loolu dinaa ko wax ca kaw nit day gore rekk mbaa mu goree di te lu nit saña di saña di sana saña sant ka ko defal sëriñ Tàkko maa ngi lay yóbbante ci sëriñ Mamor ne ko li sëriñ Murtada defal njobootu sëriñ Baaba te jaarale ko ci man ci taxawaay ci biir réew mi ak taxawaay ci bitti réew mi ak sax nag ci biir commune bi ma yor bari na ci relation yu fi sottal dara te yàlla mu ngi ko jaarale ci loxo Cheikh Mouhamadul Murtada maa ko nangu maa ko dund te maa koy seere la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santee ma dolli leen waaye wala in kafartum su ngeen goree ba santu leen ma sama mbugal day tar ci yéen ndem yàlla suñu borom moo bëgg bu la defalee nga wax ko kon bu la nit defalee war nga ko wax moo tax maa wax loolu ci sama kanam kilifa yi ci sama kanam bokk yi ci sama kanam njaboot gi te yàlla xam ne li ma seere dëgg la njaboot gaa ngi koy dund ndax fekke nañu ko bu loolu jàllee ma ñëw ci sama bokki bopp muy ñi ma bokkal sëriñ baaba ñi ma bokkal sëriñ baaba sëriñ Moustapha rekk moo ma ci mag Serigne Moustapha moomu ma ci mag nekk ci bopp kër gi bis bii ba ñu koy tàmbali suñu wayjuru Serigne Modou fal soxna mi wayjuru Serigne Baba mi moo fi nekkoon bu ma jógee ma jóg ci tànkam bu ma waxee may wax ci kàddoon bu ma liggéeyee moom laa doon liggéeyal ba ba li ma ko noppee gis ma ànd liggéey ba ak Serigne Moustapha mi wayjuru Serigne Khadim mi toog mu nekk ci bopp njabootu sëriñ baaba gi la may def moom laa ko doon defal la may wax moom laa ko doon waxal la may lijjanti moom laa ko doon lijjantil ndax doom ju baax ju nekk sañ na ne bàyyi noppalul ma yanu yan bi tey bi ma leen noppee gis li may woote li may def li may lijjanti li may def ci njaboot gi sëriñ Moustapha mii laa koy defal ndax moom la waroon te rakk bu baaxee sañ na ne mag ja noppalul ma yanu yan bi loolu nag moom lay dund te balil insaan ala nafsihi basira nit kenn mënu koo gën a xam boppam li ma xam tey moo di doxalin wi ci kër sëriñ Touba moo di yàlla du juum yàlla moo ko fab def ko mu nekk ci boppu njaboot gi moo xam lu tax mu def ko ci yàlla jox ma kàttan ak lijjanti ak man-man ci kanamu njaboot gi ma di ko dox moom lay doxal la ca des muy ñi ma féete suuf sëriñ xaadim moo topp ci man sëriñ Moussa moo ci gën di gone samay rakk ku xam seen sikk nëbbal ma lu ñu ma def baal na leen nu ñu mel neex na ñoom laa am bu jafee ñoom lay tëjul ci néeg bu ma tëlee ñoom lay dénk sama njaboot taalibe na yam fa mu war a yam lijjanti la mu war a lijjanti ku dul taalibe te yàq tax laa jóg fabal say bagage te dem bàyyi noog sunu bokk bismillah bismillah lii sama warteef nañu teewlu nañu teewlu da dal nañu yëkkati ñooñu rek te teelu te dal lii sama warteef mooy gëm naa ne yàlla daf ma liggéeyloo ci kër gi jox ma jumtuwaay bu ma liggéeyee maa ngi ci liggéey boobu te yaakaaruma ci payu kudul yàlla te dara duma ci dëpp waaye dinaa ko def ci fulla dinaa ko def ci fayda dinaa ko def ci dignité danaa maslaa waaye duma maslaa ba kenn maasale ma su ma noppee ci sama bopp ci bopp yéen taalibe yi noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm li suñu maam nekke woon ak seeni maam lool la nu fas yéene continuer ak yéen mooy nekk ci seen kanam di leen wax kaay leen nu baax kaay leen nu dem rekk lañ leen di wax waaye duñ leen mas a wax mukk dem leen li nu bëgg ci yéen mooy ngeen jub di jubal di jaamu yàlla te wattandiku tooñ laaju nu leen wërsëg yéen a ngi kenn mësu ci dégg ku nu sas du nu sas kenn du nu gane kenn suñu maam waxoon na ne bëgg a doon sëriñëb nit taxuma duma jaral lu ma jóge ci sama buntu sàkket muy sama buntu kër loolu la nu gëm nun danoo gëm ne danoo war a jariñ taalibe waaye gëmunu na danoo war a jariñoo taalibe ay gor yu gore yu am seenum xel ku ñu jiital ci sa kanam ngir yàlla war nga am doxin woo war a doxe dul di leen exploité ci sa ittey bopp waaye bëgg nañu nag ngeen jaamu ji yàlla ba bu ëllëgee bu nu demee yowmal xiyaam fa kanam sëriñ Tuubaa duñu rus ci kanamam bëgg nan ngeen wattandiku tooñ ba duñu leen tinu di sëngeem ci kanam koo xam ne warunoo sëngeem ci kanamam bëgg nan ngeen nangoo liggéey ba mën a sàmm seen ngor ak seen diine sëriñ baaba nag bi ko sëriñ tuubaa yabalee fii ba ni mu fi bàyyi ko bëggul leneen li mu ko liggéeyloo woon rekk la bëgg réussir na nag message ba mission ba réussir na ko keroog ba nga xamee ne sëriñ Modou Moustapha yebal na fi sëriñ sàmba Aminata Diop ci moom ne ko boo demee ne ko ca Taif dama faa am suuf soo xam ne moom laa ko cërale na ñëw na ñëw wetti li ma wetti li ma sëriñ Baba daa wax sëriñ Samba Aminata ne ko boo demee mbaa li ma lay wax boo demee di ko ko wax mu ne ko dinaa ko ko wax mu ne ko boo demee nee ko sëriñ Touba waajuram moo ma noon demal nduuf liggéeyal fa yàlla te su ma sañoon su ma ko fekkee al àllaaxira bu ma nee foo jóge ma ne ko ndóof su fekkee na nag ndigalal Serigne Touba loolee moom bëgg na koo dindi moo fi nekkal sëriñ Touba bu koy dindi rek may ñëw ba mu demee wax ko Serigne Modou Moustapha Serigne Modou Moustapha dafa jël suukar ak kafe ak ataaya jox ko ne ko boo demee joxal ma ko Serigne Baba ne ko tuub naa xalaat ji sax ndigalal kookee rek ka mat a def oh. Serigne Baba. bi mu dikkee fii ba war a moom paaleen ca njàmbur parce que foofa la dëkk ba mu waree moom dëkk ba dafa jóge fii dem mbijeen sëriñ Dame Fall mi taawut ki may wax mi ngi nii ci biir mbooloo mi dafa dem mbijeen jël fa doomam ju ñuy wax Balla Fall ne ko kaay paaleen téyal ma suuf si ak dëkk bi man fa ma sëriñ Touba toog la woon laay toog duma ko jënd leneen nduufa may moom ba ba may dee loolu la séqoon ak waa ngir liggéeyal Serigne Touba fii loolu la ñu séq ak yéen du ñu fi jóge mukk du ñu dem feneen soxla fu nu feneen gisuñu leneen fu nu mën dem nekk bu nekkee ci réew mi bu guddee nu fanaan si waat fii kon nag noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm ndax bu nu leen laajee ngeen joxe bu nu leen digalee ngeen def bu nu leen teree ngeen bàyyi yàlla na nu yàlla dimbali ba nu leen di digal lu dëppoog ndigalal yàlla di leen tere tere goo xam ne dana dëppoog tere yàlla nu ànd ak yéen ci ndigalal yàlla ba ba nuy am ngërëmal yàlla monsieur ministre maa ngi lay nuyu di lay yónnee nuyu nag ci président de la république monsieur ministre as gor day goree di day gore mbaa mu maa ngi seedeel taalibe yi ne barab bii nu nekk tey lu ngeen fi gis rek président de la république moo joxe ndigal ñu def ko fa préfet département bi mi ngi nii daf ma laaj ñaata baas ngeen di soxla ma wax ko ko mu jël téléphone am ne nañ ko yóbbu nduuf yow monsieur ministre wóor na leen ñaari turbine yi gouvernement ñoo ko moom benn bu ci nekk gouvernement moo ko dugal ci oto fab sees ya teg ca oto ba ñëw wàcce ko fi mu boole ci ak équipe bu ko installé liggéey bi may liggéey fii ci commune bi le vingt cinq mai bi président toogee ci réew mi ba léegi amul benn gàllankoor bu ma ci jéem a def te mënoon na ko ndax moom la yàlla teg ci réew mi gis nga nun nag ay gor waaye ay jullit lañu yàlla daf noo wax ne ate llaha wa atiu rasula wa ulil amri ko dañuy topp yàlla gëm ko moom dong te duñ ko booleeg leneen président kat nangu nanu ne mooy suñu président nangu nañu ne moonu yilif yilifaale réew mi waaye ndigalam saa bu jógee te dëppoowul ak ndigalu yàlla nun nu bañ waaye bi nu yàlla digalee nag nu gëm ko ba noppi dana nu nan topp yonent bi yonent bi nag bu nu ko gisatul ñi ko fu wuutu ñooy suñu kilifa yii ñoom itam bu ñu nu digalee déglootu nu ndigalal keneen xoolatu nu ndigalal keneen te du nu bàyyi xel ci keneen la ñu nu digal rek la ñuy def waxoon naa la fii daaw nela képp koo xam ne Touba ànd ak yow nu ànd ak yow ku Touba wan ginnaaw dootu nu la xam. bu nu noppee ci loolu nag yàlla wax nu ne ñi ma jël nag def leen ñu di ay kilifa wa ulil amri minkum te mooy président de la république ak ñi mu àndal nit du fal buur boppam de yàlla mooy fale te ku yàlla fal kenn mënu folli lu dul yàlla dalaa folli te yàllaa ko jox réew mi te kenn mënu ko fee jëlee feeg dafa soobul soobul suñu borom daf lu dul dafa soob suñu borom waaw président yàlla teg na ko ci bopp réew mi mu yëg kër gi yëgaale na di nu jàppale ci lii man kat président Wade laa àndaloon mu baax lool waaye li muy baax baax mësu fee def lii asgor day wax dëgg rek nii ngeen taxawee ci bis bii nii wax dëgg yàlla gouvernement Abdou Diouf fekk nekkoon na fi gouvernement Wade nekkoon na fi waaye taxawee ñu noonu xarabu nu leen nag. kër gi doo ma sa dégg ñu xarab xarab gouvernement ci joxoonu duñ ko def parce que ab sëriñ buy gedd ab ceeb ndax dafa tuuti mbaa muy xarab gouvernement ci dang noo xeeb war ngaa xoolaat sa bopp mënoo taxaw yëkkati baaraam na lu ma soxla rek sëriñ Tuubaa defal na ma ko wëlbatiku di xarab ab gouvernement ci joxoo ma waaye yëgoo ma nag yëgoo ma gor su nekk sañ naa sañ na ko wax jàkkaarloo ka ko war a yëg te yëgu ko mu ne ko yëgoo ma moom nag yëg nañu boo demee nee ko monsieur le ministre neel président jàpp naa ko danaa ko jàppale loolu lenn rekk la am mooy kër gi dama gëm ne li ma yàlla defal jaarale ko ci sëñ Touba borom kër gi moo ko liggéey borom kër gi bisam bii mooy bisam bi ku ko yëg dama lay yëg ku ko jàpp dama lay jàpp la ca des mooy njaboot gii boole seen bopp di ay gor seen bopp jox ma te fakkataluñu ma lu ma leen wax ñu def ko na ma na ma président jàppal ñii na ma jàppal itte yi ñii na ma jàppal soxlay ñii beneen bi ci topp président Yankhoba jatara maa ngi lay yóbbante nuyoo ci président Idrissa Seck yàggul rek waxtaan nanu am na lu nu séq la ma séq ak moom xam nga ko yow waaye sëriñ sii fi teew am na lu ñu ci xam maa ngi feddali kóllëre googa ak moom di ca bàyyi xel lu ma man keneen ku ma yëgul nag yëguma la keneen ku ma faalewul awma ci yow soxla Abdoulaye Tine na nga ma jottulil nuyoo président Ibrahima Sall mi président modèle maa ngi koy sant di ko gërëm woo na ma téléphone démb wax ma ne ma su sañoon day ñëw ci bis bi waaye dafa am gàllankoor waaye Abdoulaye Tine dana ñëw maa ngi ko cay sant maa ngi ko cay gërëm kon bu loolu jàllee ñi ma bokkal commune bi ci liggéey te Moodu Thiaw nekk ci bopp bi maa ngi leen di sant yéen maire yaa ngi nii waaw yéen maire yi ana maire bu ci am ay màndaay màndaa ci commune te sa biir conseil werante mësu faa am man de sama conseil werante du fa am damay ñëw wax ordre de jour bi yëkkati na nangam laa bëgg wate leen ko ñu yëkkati seen loxo wate man de sama réunion xuloo du fi am damay woo nit ñi ñu ñëw mën na décision nangam laa bëgg ànd leen ci ñu ànd ci ma jóg dem benn benn général laa am bu ma joxee général bi ordre mu exécuter buy exécuter dafay e-, exécution ba day àgg quatre vingt quinze virgule neuf pour cent muy El Hadj Mamadou Thiaw maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ci dëggoom ci loyautéem ci ngorom waaye ci jàpp gi ma jàpp gis nga njaboot kër gi tey boo nee muutu caw rek ñu jóg wut yat pour xeex. mën nañ maa tudd sax ñu muñ waaye boo koy tudd rek ñuy wut yat pour xeex xam nga lu tax dañoo gis ni mu ma def te yàlla seere ko nag bés bii moo ci man taalibi yiy wuyoo te noonu la ko dëkke ma jaral ko alalam su su ma soxlaa alalam def ca la ma neex su ma soxlaa dooleem def ca la ma neex su ma soxlaa jëmmam mu bàyyi ay soxlaan maa ngi koy sant di ko gërëm di ko seere di ko seereel njaboot gi ak bokk yi kon jataay bi dafa yàgg te toogaay bi metti maa ngi sant ñépp maa ngi sant soxna yi njobootu sëriñ Touba gi fi teew yore liggéey bi soxna maam bu sa Mbàkke bu sëriñ Abdul Akim xam naa ku ko santul xam naa ku ko santul dana doy waar waaye maa ngi sant soxna Indu maa ngi sant soxna yi yépp nag wax nañ ma léegi ne ma sama mbokk sama rakk Lamine Diallo meeru Thiès Nord teew na fi ñoom itam nag nu séq lu dëgër loo xam ne ñi ngi cay bàyyi xel bu baax ma ne maa ngi ciy bàyyi xel bu baax maa ngi gërëm bu baax meeru département Thiès yi yépp mënuma leen lim waaye ñoom ñépp ñi ngi fi gis naa cër bi ñu ma jox gis naa bàyyi xel gi ñu ma bàyyi xel monsieur le préfet maa ngi lay sant sa administration rafet na sa clandrier sarse na waaye yaa ngi doxal sa administration ni nga ko war a doxale waaye yaa ngi doxal sa relation ak man ca gën jaar rafete anam maa ngi koy séeréel monsieur le ministre di sàkku mu jottali ko président monsieur le ministre waxal président de la république ne ko yëg na ma yëg weesuwul dem ba àtt na yabal sa ministre de forces armées nga wax loo ko mu wax ci rajo yi ñépp dégg nga ne dama soxla sëriñ fàllu na ñëw liggéey ak man ñu liggéey réew mi waxal président ne ko danaa ko jàpp danaa ko jàppale ci liggéey réew mi incha allah maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa barakatu suñu xarit suñu wëllëree sëriñ fàllu Fall meeru Ndiayène Sira di nuyu mbooleem kilifa yi fi nekk moo xam imam la moo xam chef de village moo xam li ñuy wax ci tubaab en vos titres et ku ci nekk ak ndombo tànk bi ko suñu borom jox wala waa àddina bi jox ko ko di nuyu bu baax maire yi fi nekk di nuyu suñu xarit l'adjoint au maire Mamadou caw di nuyu parti yi fi nekk moo xam réew mi la moo xam PDS moo xam beneen parti ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp Sëriñ Fàllu di la wax ni am nañu mbégte bu rëy tey mbégte bi parce que président dafa jëlaat tey yónnee ñu yaakaar naa ñëwoon nañu fii war na mat juróom-ñaari at ci gannaaw boobu waxuñu Augustin ministre bi ñu fi ñëwee li ñu fi li ñu fa déggoon keroog moom lañu dégg tey mais mu mel ni am na luñ ci yokk lu ci yokk bu baax li ngay def lu am solo la pour réew ke képp kuy jog pour aar diine pour liggéeyal diine pour dugg ci xolu nit ñi ñu xam lan moo leen war kooku danga def li la war donc sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant parce que maire nga naam mais kilifa diine nga lu am solo la loolu moo tax président de la république def ma ni boo demee neel sëñ Fallou Fall maa ngi koy gën a tàllal loxo tey àddina ànd noonu la tey mën ngeen ànd bu rafet mu am ay tolof tolof ci diggante bi loolu mënut te ñàkk mais bu dekkee ne waay gëm lañu xam ni suñu borom tëlal na lépp ba pare donc ñu ngi lay sant tey di la gërëm parce que mënoon nga wax ni dama organi dinaa organiser du ma invité président de la république donc bu boobaa délégation du fi ñëw préfet dina ñëw mais président moo lay yónnee délégation bii di ko xeet dafa voyagé te incha allah dina ñibbisi ci kanam dinaa ko wax ni ñi ngi fi woon mais nag boo nekkee ci béréb sama papa def ma ne woon boo toogee ak ay nit wala boo toogee kilifa boo fa toogee lu mat waxtu boo fa jëlul dara jaratul ngay toogaat ak ñooñu ma gëm ni loolu aussi dëgg la dégg tey ay baat yoo xam ni bu ma sañoon waa Sénégal yépp déglu ko dégg na baatu Sëriñ Mbakke lu am solo nga fi wax mais dégg nañu fi benn professeur Sëriñ Murtada Ama li nga fi wax bu ma sañoon man Auguste dañu koy bind ci téere ñëpp di ko déglu non seulement am na religion diine mais am na sociologie te ñaari ñooñu boo ko boolee amul fenn fu muy taxaw parce que dafa am solo ñaari yooyu kenn mënu ko tekkale sociologie maanaam ñun lu ñuy dundee boole ko ak diine donc sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant tey laa la mos a dégg nga wax mais gëm naa ni lu am solo la pour suñu Sénégal donc sëñ Fallou maa ngi lay waxaat tey ni président de la république mu mi ngi lay gën a tàllal loxo pour ngeen ànd liggéey Sénégal du liggéeyal ko de pour ngeen ànd liggéey Sénégal gis na daraja bi nga am fii ci Ndiayène Sira gis na aussi daraja bi nga am ci département bi ak ci Sénégal loolu yëpp moo tax mu lay tàllal loxo pour ngeen ànd liggéey Sénégal loolu euh, sëñ bi loolu laa fi bëggoon wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di am yaakaar ni bu déwénee yàlla dina def ñu ñëwaat fii ñun ñëpp yàlla may ñu jàmm way ñu may ñu taw taw féex ñëpp di ñaan sëñ Cheikh di Mokhtar Mbacké yàlla may ko gudd fan may ko wér may ko toujours muy taxaw ci kanamu Sénégal di ñu jàppale pour que dëkk bi am jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw baat yi rot ci biir tànt bi weesuwul ñi fi teew mooy sama bokki bopp sama bokki bopp mooy samay rakk kiitoog ci sama wet moo ci mag ak sama mag mooy xalifa bi ak taalibe yi ñu dama leen sant gërëm leen di ñaan yàlla mu dimbali ma ba ñu ànd njaboot gi doon benn te dara bañ leen taqale taalibe yi dama leen dig digal liggéey. jaamu yàlla te wattandiku tooñ président de la république dama ko sant dama ko gërëm parce que nag président daf ma yëgal boppam nag te mësul dellu ginnaaw ci yëg-yëg boobu mu am ci man di ko waxee di ko defee ba àttan ko yëkkati ci rajo àdduna bépp di ko dégg euh, bis bii ma amul lu dul moom it mu dikk bokk ko ak man ma sant ko gërëm ko euh, ñi mu fi yabal muy euh, administration territoriale te préfet département jiite ko ak ministre Augustin Tine ak conseil spécial ñu ñëw ma sant leen gërëm leen yóbbante leen sant ak gërëm ak jàppale président de la république. waaw euh, monsieur Samb aadawoowu ma di def ay déclaration politique ci màggal gi yàlla daf ma bind ma bëgg di séparer ñaar yi bokkul un jour viendra dinaa leen woo ngeen ñëw fii ma def déclaration politique ngeen dégg tey dama woote màggal gi. waxtaan naa ak mbokk yi waxtaan naa ak taalibe yi waxtaan naa ak dëkkandoo yi sant naa borom réew mi en ce qui concerne le problème de politique euh, benn bis ci kanam ci fan yu néew di ngeen ñëw dégg ma jël ci décision boo xam ne yéen ñëpp a koy déggandoo réew mi déggandoo ko li ma mën a wax daal mooy président yëg na ma yëg naa ko président jàpp na ma jàpp naa ko euh, la ca des nag benn bis ci kanam danaa ca wax lu leer président nag woo naa ko ñu xoolal mbooloo mu teew nii. mbooloo mi teew ni kilifa yi teew yëpp bi ñu ñëwee seen i yére mënuñu génn ndax poussière dëkk bu toll nii ndaje diine bu toll nii nga bàyyi yoon wu mel nii mu nekk ca ñu ciy jaar mais loolu loolu xel nanguwu ko yéen taskati xabaar yi sax waru leen mën a seen xel nanguwul loolu bu président amee ay procès ne dafay yees yeesal këru diine yi mais mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk mais bu dul woon këru seex yi kon Touba du exister. kon bu demee di re di yeesal këru diine yi moo xam Touba la moo xam Tiwaawan la moo xam Njaasaan la mais le minimum na président jàpp fii nu am yoon wu ñu jaar bokk le minimum mbooloo mii na leen faciliter nu ñu def pour bu ñu fi nekkee ñu am bien-être donc loolu laa wax président pour mu def wala voilà voilà maa ngi leen di sant di leen